sport lan la. da ngay matal nga dem say say say rakk ñëw matal dem ku su matal da ngay dem xam nga la moo gën a bon si àdduna. ngay ñit nap. day ñit moom. ñit nap moo gën a bon si àdduna. ndax bomb day ñit. day ñit bomb day ñit. mais mais mais rek bombardier bi nga wax loolu bombardier boobu moo ñu daan moo moo ñu daan Balla Gaye. Mhm. du ma Balla Gaye du ma Modou Lo. daan na Tapha Guèye daan na Zallo. du ma ñooñu kenn ku ne da nga am tur. mais est-ce que sa nga diriger bombardier ci combat bi yow. combat bi maay favori maay maay bëre maay xeex maay daan si kàttanu suñu borom ah. si kàttanu suñu borom. yaay bëre yaay xeex yaay daan. incha allah rabbi. foo teg loolu. lu ma gëm la lu nekk si man la gëm ne Bombardier mënu ma tee. da nga koo dàq ba da nga ko ëpp doole. waaye bëre moom bu ma ko wax. Ah. doole tamit maa ko ëpp. wax jeef fi nekk rek. rek buyul buur est-ce que est-ce que mus nga am adversaire bu mel nii adversaire bu dëgg ñaari yoon roi des arènes mm-hmm. ak fi mu jaar bëril tanoor yëpp daan leen mm-hmm. su ma juumul ci sa carrière adversaire bu mel nii yàgg koy soog am mm-hmm. est-ce que bi ngay bëreel est-ce que déen mboxo waa tamit amul amul loo xamante ni kenn sóoroogu ci moom dara dara dara dara mel nii li ngay waxee nii joxoo ko benn cër looy indi la baat loolu nga nar a indaale parce que adversaire bi nga am musoo ko am non du question jox naa ko cër wala jox ma ko cër maanaam dañoo fay xaalis pour ñu neexal bisam. Bombardier ku ko joxul cër yow bokkoo si laam nañu te dëgg ndax def na fi lu kenn deful mooy li ma la wax du ma ko du ma ko dépassé te adduna neex neex ba ma dépassé si cadre sport la ñuy wax ak moom yaa ma dégg kilifa na daam looy waxee ak moom moom kilifa la waaw mais daal lan moo koy bëri. ñun daal ñu ngi waaj ñu ngi waaj ànd ak suñuy mbokk. lamb ji lu mu laaj rek. waaw dama koy def si kàttanu suñu borom bu laajee xeex damay xeex bu laajee bëri damay bëri mais si kàttanu suñu borom damay am ndam incha allah rabbi. Hmm. incha allah. lu ma gëm la lu nekk si man la man chaque jour noonu laay doxee. lu tax loolu gëm-gëm boobu nekk ci yow. waaw dafa nekk si man dafa nekk si man lu ma gëm la ak lu may doxe la di ko waxee te incha allah damay am ndam. bu ma demee ba Bombardier di ma téye ma bàyyi bëri. mais Bombardier téye na say morom. bokkul ñooñu du samay moroom man xale laa. mais ñooñu non man xale laa man xale laa xale laa ñoom bi muy daan ñooñu ñooñu dem nañ ma man xale laa maay bëre maay daan ci kàttanu suñu borom. ban image nga am ci moom boo xam tey yaa koy fàttaliku ci Bombardier. image comme ban. ci bi nga koy dégg waaw mais bi muy daan Tyson rek ñun boobu bëriwuñu sax. waaw eh, boobu bëriwuñu. moom ndax boobu ñun tajoon nañ tajoon nañ faral la waaw boobu waaw sama yaay sama yaay boobu tajoon la woon waaw. keroog bi mu daanee bomba la tajoon kon lan nga yëgul yow. non mer rek dañuy mer xam nga tey nit koy supporter. sama mer xam nga sama yaay damaa bëgg sama yaay. waaw fu mu faral dama kay faral. ah bi mu daanee tajoon daal na la. Ah, ah. waaw rek ñu lay waaw dama gis nga bëri ak Gris 2 bëri ki ne mooy Elton. nga jël leen manipuler manipuler bu garaaw. Elton booy xool ba ñu bëri woon stade Léopold Sédar Senghor. dañ ko presque guddi nga ko booy xool. mais loolu est-ce que koy xaar sa diggante ak Iba Der muy Bombardier parce que Bombardier aussi lourd la comme ñoom. Mm. te booy xool Bombardier moo ñu gën a lourd. Mm. da nga ne yow lourd da aay ci moom macha allah. est ce que ñu ngi xaar rek waaw ah, mooy li làmb nañuy def. waaw làmb nañuy def. waaw ndax ndoxtu bëre dafa nekk si ñun. waaw ndoxtu bëre bu nekk si ñun nag si géew ba fu lu mu ñëw rek dama koy appliqué. Hmm. waaw dama koy appliqué. Mhm. mais gis Modou Lo doon na ko ay coups diagonal mhm. mhm. waaw ñu ngi ñu ngi ñu ngi waaj daal. Mhm. ñu ngi waaj lépp. tous les plans ñu ngi koy waaj. waaw. mais bi ko moom. ak waa waaw gars ñu ngi waaj. waaw ko xam Reug Reug moom xam ko si mobilisation. ñëpp ngi waaj. te incha allah làmb ji dina neex. incha allah rek. ok rek maa lay baax di la ziar dañu demoon bu jëli bombardier <laughs> léegi moom mu ne moom mu ne lébu nga rek bala ngi ci yow de perpala damay napp waaye léegi mu ne moom lébu bu xamul dara nga ci géej yaakaar naa ne seetaan nga point de presse nee nag mbaal géej géej buñ ci dugalee gaal mu dem ba ci biir bu tawee yow xamoo lu koy lu koy dindi. Mhm. nee na yow xamoo dara ci géej. dama ko rek gaal gi buur la ko seet. mu ne ma koo xamul dara ci géej. <laughs> am na na waxul léegi ñu ko wax. waaw moom mooy capitaine du ma yokk la ne moom mooy capitaine nu ci gaal gi rek bu kii ñu yee. jugala <laughs> jugalaas gaal gi. ah nelaw am na nu mu ko tuddee de. kii nelaw dañuy dawal ba ah. day am ñoo xëcc mbaal waaw voilà xëcc mbaal rek lañ lay moom mooy li may wax rek wax naa ko si interview passé mm-hmm. xëñ na booy mbuuri la dégg rek naa digg gaal ak nangam sàngam mais moom man lépp laa def si géej mm-hmm. loo xalaat si géej rek def naa ko muy liggéey géej xam nga moom ay mbaal digg lay wax ak yooyu mais man loo xalaat si géej def naa ko jaar naa si lépp moom nag xëñ na xamul ah, moo tax muy wax loolu mais man musum moolu digg ak moolu boppam moo si yam ak moolu xaw ma mu opaak ay nangam nangam yooyu yëpp jaar naa si lépp lu moom li mu wax yëpp dama say jaar. xëy na moom jaaru si moo tax na xamu si lu bëri. jaaru waaw xëy na gars yi la gis rek ñuy wax noonu mu mu jaar muy muy jaar si loolu. Mm. mais man moom jaar naa si lépp. Mm. nee na gaal gi gaal gi nga serfee. nee na na nga fexe ba booy bëre si na nga àndaale sa mag Siteu. mu daan la ba pare <laughs> na gaal gi fi ko ser baaxul. <laughs> waaw xëy. Ah. waaw moom ah, li mu yenu nii naka yennee ko ba pare mu doog xool keneen waaw bu ma ko tegee lu miti ba pare dina tal leneen du dul des yi tegaat keneen incha allah rabbi mais ren ba ma jël diisu si réer prélection bi amoo prélection ponkal mu tëdd bomba jël nga jàkkaarloo ci biir man bu ma demee bay tiit sama mu <laughs> ma demee bay tiit sama moromu góor ma bàyyi bu rek lalaay tiit si bombardier punkala wala nangam sangam naaw. nee na géew ba mooy doon capitaine géew bi. ah na mooy diriger la mooy capitaine non bombardier xëy na lim euh, lim reeroon moo neex rek mais bombardier damaa mën a diriger. moom laa diriger non non bombardier du diriger moom na taxaw rek. Hmm? mais moom daa donc yow taxawal rek. non bombardier du dox sama kaw moom boo bëggee dégg-dégg. du dox sa du ñëw. wax jee fi nekk nii rek mais gis nga kenn ku ne boo tëddee sa néeg di nga xam bu baax. wax jee fi nekk yéen lay théorie nii rek. Hmm? Bombardier. waaw yéen lay napp nii rek. yéen lay napp ne baax na bala 24. ok <laughs> moom moom day mbër boo xamante bi nii pied gauche lay jiital. te pied gauche boobu mooy jiital yaakaar naa ne bëri na ak champion yu bëri. yor na benn arrêt droit boo xam ne yàgg naa jeexal ay làmb Modou Lo jël na ko kaw Balla Gaye 2 jël na ko kaw songi Eumeu seen aussi tamit jël na ko kaw est-ce que croisé droit boobu mënul yàq làmb waa mais xam nga tey ji coup boo koy xool rek mën na bañ am puissance bi ak boo ko xoolule waaw ndax ñun moom ñu ngi liggéey ñu ngi liggéey nag du ay wax maanaam lu ñuy jëfe la nit ñuy gis tak si kattanu suñu borom dinañ ko jëfe incha allah rabbi waaw man ñaari pieds lépp la lu ma neex laay teg man amuma si problème boobu. man mosuma gis ku manipuler Bombardier ci carrière am manipuler ko jaay ko doole daan ko. Hmm. est-ce que mën nañoo xaar loolu yow ak moom. bien sûr def ko ko de. bien ndax làmb nañuy def. man nga koo manipuler. bu ma demee ba bu ma demee ba mën mënumaa manipuler Bombardier kon lan laay entraîné lan laay daj ay coono kon jaru ko. mus nga am adversaire bu toll ni moom ak poids bi mu yor. bien sûr ci arène bi. bien sûr Gris 2 bi may bëre moom Gris 2 la. gën ko nekk xale. est-ce boobu maa ngi posé boobu maa ngi posé cent maa ngi posé cent vingt deux kilo est-ce que bokk nañu xeex ñoom ñaar. Bombardier bu ñu taxawoon nii si balance laa du ma pay dix kilos. non du ma pay dix kilos. mën na ko dix kilos non non. poids bi nga yor tamit man su ma seetloo dafa mel ni sa poids dafa gën a. yokku nii xanaa déggoo ma laa la dama ne la. dafa wàññeeku dégg dam non man moom man moom man moom noonu laay def man. man professionnel laa lu ma lu ma lu ma bëgg a mel dama koy mel ndax sama yaram antal naka xale laa mais damay wax lu tuuti te bëru mooy maanaam bombardier yéen lay nax mais mun mënuñoo nax. yéen lay nax yéen lay nax bi ça veut dire que da jàpp ne li muy wax noonu da koo mënatu def ci. non mënat dañu wax dëgg mënatu ko wax jee fi nekk nii rek mag nga ko jàppe fi nekk nii rek. non jàppee ma ko mag xam nga tey la jëlaat. Euh, waa moom laa lay expliqué nee naa la nab kenn du ko njiit. waaye kenn du ko njiit. Hmm? mais la vingt le vingt quatre sore soreetul. na taxaw rek dëggal boppam incha allah. mais rek rek gis nañu gis nañu ah, ku ah. ku dal moom lu mu wax. waaw mu dal Modou Lo moom lu mu wax. Mm-hmm. il fallait que Modou Lo daan ba fàtte fàtte. émission yi nag boobu. parce boobu léegi daa ñuy mag la mag la mais am na mm-hmm. force de frappe. est-ce que boo jëlee koom mooy xew. jamono boobu. Uh-huh. ak deux mille vingt trois bokkuñu. ah <laughs> <laughs> wax ko foofu. ok moom daa mel ne xeex boobu ci la incité parce que moom nee na ménagère am Aline Gueye xam na li mu signé ak Père Pala mii. ah, ah. <laughs> mooy <laughs> te promoteur promoteur bi di jamay kër aussi tamit nee bu fekkee ne da ngeen a bëre jël la am te xeexu leen du ngeen jot seen reliquat. dóorante ak ay MMA lañ ci wax sax ci. nee na lambi man da xeexal man MMA. ah. Hmm. mu jiitu nga ne Bombardier. Bombardier man dama na xeex man MMA. yaa ko mën bokkuñu sax. ci MMA. bokkuñu. lan moo leen yi tolloowuñu. ci MMA. lan tolloowuñu déglul niveau yi tolloowuñu capacité yi tolloowuñu xeex bi tolloowul professionnel yi tolloowul. yaa góob ci MMA. bokkuñu bokkuñu mës ngaa gis euh, Bombardier dóor tànk. non dóor tànk. déglu li may wax. gis nga bombardier mu dóor tànk. xeex un. lan lay xeex loolu du xeex. da ñëw mu xeex yow nga ñëw mu daaneel la toog sa kaw di dóor. Babacar ba tey dañuy dañuy ñëwaat ci question bi comme ni ñu koy waxee moom tamit mu nekk benn mbër boo xamante bi nii ci biir làmb yaakaar naa ay preuve def na ko. Mhm. Reug lan moo la may tey nga jóge ci Sa Thiès fi defar par recours dem bëre jeeg Bombardier directement te moo la may loolu. fulla ak fayda gëm sama boobu gëm ni man damaa war doon droit des loolu moo ma ko macha allah Adja uh, Thier. waaw Reug uh, uh, ñu ngi lay siyaar di nuyu ñu fi nekk ñëpp ah. bu ñu si communication bi mel da nga xaw am kii booy demee dañu gis kii di diggante ak Modou Lo. Mm. Modou da ko échec Balla Gaye échec ndax yow loolu di nga mën a ñëw pour xam nga tey jii maanaam ñun dañoo ànd ak suñuy mbokk di liggéey ñun du ñu mës naagu. Mm. adversaire la kon adversaire yu ñu doon am rek yaa may dégg. cër bi dañ ko koy jox lépp dañ ko koy jox mais jour ba ñun ñooy xale ñun ñooy xale làmb ji ñun ñoo koy neexal ñooy fecc fecc mi ñooy xeex ñooy bëre ñooy daan ci kàttanu suñu borom mais musu musuma kaa xeeb champion la def na fa lu kenn deful kon bu ma la déggee li ngay waxee nii day mel damay xeeb combat ji non jamais. nee nga moom du adversaire euh, euh, hmm. ndax am si kàttanu suñu borom deux minutes yi ma wax. Hmm. du ma si jóg. incha allah rabi lépp lu ma bataay. waaw da nga ma mës a xam ak wax. wax loo xam ne du ma ko def. non damay laaj laaj da nga ma mës xamee loo xam ne du ma bu ma waxee du ma ko def man lu ma wax dama koy def. Ah. Hmm. ok ba tey Thierno dañuy ñëwaat ci. par rapport ak poids bi nga xam ne yor na ko dañu gisoon ci combat Sa Thiès. Mhm. Reug Reug amee benn masse. ba expert yu bëri ci làmb ne lii da koy très bëri. Mhm. ne combat bi combat rapidité la bi nga ko jëlee ngeen def ay quelques rotation yu gaaw. Mhm. lan moo tax Reug Reug dem tojaat yaram bi yëpp ba yor poids bi nga xam ne ba muy bëri mba fat ñoom Serigne Ndiaye de ñu ci mel ni Franc. ñu ci mel ni ordinateur lan moo tax nga dem chercher jiwaat poids boobu. combat bu rapidité wala bëgg a cons bi wala lan moo tax nga moom. non xam nga tey gi maanaam ñun ay professionnel lañ ñun dañuy liggéey rek xëy na poids boobu yéen yéen a ko gis mais man gisuma loolu xëy na gars yi ñoom ñoo gis noonu rek mais man moom damay liggéey rek doon xale gëm li may def bëgg li may def waaw. ok combat bi lan lay représenté ci carrière bi parce tamit moo xam. gañe ko wala nga niil ko wala nga perte ko am na lu muy def si sa carrière surtout bombardier bi nga xamante bi nii ñu ko daan ci làmb bariwul boo dee xool VIP yi ñi fi dàq bëree da leen a daan tafaagee fi dàq bëree da koo daan booy kayree fi dàq bëree da koo daan zalo da koo daan dafa daan euh, Balla Gaye daan Modou Lo mm-hmm. kooku tamit nga am tàkkusaan ak moom mm-hmm. après génn ci fan la mën a yóbbu rek rek ak lan lay def ci carrière waaw euh, boo boo seetloo maanaam tey jii bu bokkee sa palmarès rek day rafet ndax comme li ma la rek doon na fi roi des arènes deux fois te champion la you kon kooku bu bokkee suñu carrière rek ñun suñu suñu fierté la te dañ ci kontaan. Hmm. waaw. jamaïcain bi dëgg combat bi tamit seen relation yéen ñaar comme ni nga ko amee la ko Bombardier amee ak moom. Hmm. ana lan nga koy wax dalal xelam pour amateur yi aussi tamit ñu ñëw mën koo wuy si avance. non man bu doonee sama côté rek moom man <laughs> xelam dal na. Hmm. waaw ndax combat boo xoolee combat bi jë waxaale ñu lu yàgg. waaw. waxu sax waxu ay nekk fi di waxaal li ma bëreeg saakees kam xaaj xaaj nañ ko def su bëgg bëre bëre kii prix bi yaa de kon mu doon koo xam ne tey jii dafa bàyyi lépp mm. doon xale comme ñun mm. kon kooku ñun duñ ko wax dara mais daal le vingt-quatre incha allah dina xam ne nii ay góor la ko seqal. Mm. waaw te man moom ku ma xam-xam si mobilisation. Mm. waaw ñëppay ñëw. Mm. waaw waa Joal ñëppay ñëw Petite Côte bi ñëppay ñëw. waaw. ayca sëriñ. Mm-hmm. Mm-hmm. maanaam. VAR dina comme. comme maanaam daan dem xooli vaar wala. non ah Bombardier kay dama koy daan ba toog si comme ay vaar lan. vaar lan. waaw. waaw. léegi mënoon xaar wë wë wëlbati bu mm-hmm. si biir bi. Mm-hmm. wala mais moom si moom lay si moom lay lay dépendre. waaw xam nga lu si si moom lay dépendre tey jii xam nga tey jii man maa ñëw si géew bi ne lii laay indi ma ñëw ba si géew bi ma gis ka mu changé. da nga indi leneen n'est-ce